li am. bu ko defee nag mu nekk un débat boo xamante ni que Sénégal ñu ñëpp dañ koy waxtaanee la presse def si seen liggéey euh, ku ci nekk wax ci sa xel ak sa xalaat mais pour man loolu mooy dialogue mais am na dossier yoo xamante ni bu ñu ko doon nëbb kenn du ci wax ba presse du ci jot ba muy nekk un débat sur la table non parce que il informe les Sénégalais te loolu nag mooy lu ñu ko ci encouragé bu baax a baax a baax a baax bien sûr c'est important tey euh, opposition bi daal di dajaloo def ay coalition d'abord ba pare def ay intercoalition ñoom opposition bi yëpp nga yaakaar ni loolu du leen may doole ci élection yi ñu jëm. opposition de man pour man. Mhm. sama xalaatu bopp laay wax. Euh, ndax ku ci xool ku ne sa bopp ak ka ngay àndal euh, yàq nga ko lu mel ni xeme ay ku ay kuy mënunoo bokk benn ndab pour man mënta ne. koo ci tànn kenn wala nga wax ci kenn am na lu mu yàq ñoom seen bopp jubóowuñu. ñoom ñi ànd tey ñoom ñi ànd jubóowuñu lu tax ma ni jubóowuñu mooy ku ci nekk rek sa sa waxi démb mi ngi fi ka ngay àndal di ko di di ko di ko soutenir. amul loo ko yàkkul mais pourtant yéen ànd geeg ñoo xamante ni am waxal nañ leen waxu démb lu ñaaw. waaw mooy mu li ma naan la nag euh, po po mais dafa am ay yoo xamante ni dafa ëpp dafa am yu ëpp. xam nga nit mën na mën na wax wax joo xamante ni que soit mën nga sax bàyyi mu jàll mais am na yoo xam ne doo mën a bàyyi mu jàll. tout dépend ci communication ba man pour man comme le président Ousmane Sonko wax moo fi ne pour man opposition amu fi parce que boo xoolee tey ñoom mi ngi campagne mais feeñunu fenn gisoo leen. amuñu visibilité yéen loolu ngeen foog. mais loolu loolu mooy li am fu mu toll nii euh, réew mi yëpp président Ousmane Sonko moo ko dóom fu mu toll nii Pastef dafa wane boppam bu baax a baax. boo xoolee gars yi li muy campagne kenn campagne ko Sénégal boo xoolee président Ousmane Sonko li muy campagne kenn campagne ko sénégalais euh, euh, Sénégal boo xoolee tamit population bi ku ci nekk xoolal gars yi kan nen topp. yow sax xam nga ko. kon ànd bi ñu ànd ni waa intercoalition bi amul dara lu muy fragile ci waa Pastef bi nga xamante ni moom kese ñoo ànd. ku sañ lu Ousmane Sonko sañ defal moom 72 heures la toog mooy de trois jours moo woote Arena de Dakar ku ka sañ defal. nu xam ni kat am nga aura am nga doole ku ñuy topp ñun président Ousmane Sonko ñuy topp réew mi yëpp président Ousmane Sonko ñuy topp léegi réew mi yëpp topp Ousmane Sonko moo tax tey jii am ñoo xamante ne yéen ñoo ngeen ñooñu ngeen doon ŋaañ ñi démb doon ko bañ aussi wàllum transhumance tey ñu seetlu ko ñu bëri ñu bokkoon ci APR démb daal di ñëw ci pour euh, soutenir la liste de de de Pastef. ma ne bul fàtte ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mm. dafa woote rupture. te loolu xam ngeen ni mi ngi ci. Euh, tey mu nekk ci pouvoir bi ak ñi nekk ci opposition bi ak ñu nekk ci société civil bi ak population bi yépp mooy seen njiit kon amul xaj ak seen le président de la république c'est le président de tous les sénégalais donc de ce fait que moom ni muy gouverner ak ni muy gérer régime am y a une très grande différence par rapport avec régime bi fi nekkoon tey boo xoolee régime bi fi nekkoon opposant yi noo nekkoon seen ennemi numéro un te mosuñu jël sax un opposant boo xoolee ku àndul ak ñoom doo ci bokk ku ànd ak ñoom bokk ca tey luy président Bassirou Diomaye Diakhar fay def c'est à solliciter mais c'est à encourager. démb da ngeen ko doon bañ quand même. non attends li ñuy li ñuy bañ bëri na te moom il sécurise xam nga keneen la ku fi def tooxi na même boo nekkee ci biir état bi laa la wax taxu laa rëcc <laughs> wax jaa ngi fi de te lépp lu ñuy wax sénégalais yi. <laughs> les sénégalais sont conscients fii nu wax lu ne ni ngi ciy bàyyi xel suba nag ni ngi xaar la réponse est-ce que ça va se passer comme ça ou pas mais lii am na on regarde ce qui est important daal pour man ajara nii mm. on laisse le euh, on laisse le le le, le gouvernement euh, mu liggéey parce que six mois nañ fi defagum donc euh, teel na pour nu mën leen a juger il faut nu bàyyi leen seen premier mandat bi nu doxal liggéey wane du ma ne nag lépp a baax à cent pour cent man je dis les choses mais ne leen bàyyi nu liggéey nu xool d'ici quelques temps d'ici quelques années yan résultat na ñuy am si c'est bien les sénégalais vont sortir si c'est pas bien aussi les sénégalais vont sortir. Mm-hmm. kon est kon war ngeen a ŋaañ ñi nga xamante ne ñoo di intercoalition bi ànd tey ngeen naan waruñu woon ànd sax wala seen ànd kiiwul. waa parce que am na ànd yoo xamante ni au fait c'est pas sincère bu sax à la tey mais ngeen yaakaar ne ñi ñëw tey jii di leen soutenir c'est sincère. ah seen seen intérêt ñun de suñu bopp neen xam ñun daal suñu bopp neen xam. xamuñu yeneen nag. Hmm. ak li fi jot a xew ak li ñu gis ak teg yu ñuy gis ci euh, coalition bii seetaanal seetaana dàq ci ndaje a dàq ci ndaje boo seetaanee léegi di nga gis. d'accord alors euh, débat ñu ko doon wax diggante euh, Ousmane Sonko ak euh, Amadou Ba. Euh, tey ñu ne sax débat bi mën naa am du du am nga jàpp ni loolu du doon loo xamante ne bu amoon euh, dina gën a renforcer suñu démocratie. mais loolu loolu mooy démocratie parce que même aux États-Unis ça se passe comme euh, pour man loolu mooy tax xale yi mën a yeewu ci àdduna loolu mooy tax xale yi mën a xam nu état di doxe parce que am na yoo xamante ne amu fi woon bu demee nag bu commencé fee am wala am benn état bu ñëw. teg yooyu stratégie mais lu nu war a saluer la ça pas dire que CNRA dafa dafa bloqué loolu même bu ko bloqué man bëgg naa mu am man en tant que sénégalais bëgg naa débat boobu am mais comme nee na campagne tax mënul am mais après les campagnes mais nañ def débat boobu. parce que boobaa duñ fi nekk naan campagne bee tax. man pour man daal CNRA xam lu mu war a def. après campagne bi débat boobu sénégalais yi ñu ngi koy xaar parce c'est important. mais bo waa boor bële ñi nga xamante ni ñoo fare ci Amadou Ba naan euh, euh, moom euh, ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko. Mm. xëy na sax ñoom ñoo tey daal di bañ ba kee nangoo ñu bañ a def li nga xamante ni moo di débat bi. ah débat boobu de bu amee dina neex sénégalais yu bëri ndax ku ka sàkk mooy président Ousmane Sonko te aussi Amadou Ba il a répondu ouais. il a accepté donc après les élections débat boobu dafa jaadu war a am ñu seetaan ko en direct ci télévision yëpp ñu xool. Et puis ça permet les Sénégalais de savoir beaucoup de choses. C'est important. Nous ne sommes pas des ennemis. lii nu nekk nii liggéeyu Sénégal la te ñu fi nekk danoo am xam-xam ku ci nekk rek am na lu la yàlla may. Adjara yaa a de milliards de personnes qui existent dans ce monde te ku ci nekk yàlla daf la may xel ak xalaat mais on doit être démocrate ku ci nekk nu nangul la loolu mu am solo débat il faut muy am ndax débat bu amulee pour man de. pour man loolu mooy indi nag problème yi. Mhm. parce que débat fu mu am rek mooy tax solution yi mën a génn. d'accord mooy tax tamit nu mën a xam fan la dëgg féete.